fekkee vote bi euh, mën a xëy ñëw def suñu devoir citoyen donc euh, nuyu askanu Sénégal euh, moo xam fu ñu féete ci àddina bi rawatina askanu Médina gi nga xam ni fa la ñu bokk am mbégte li nga xam ni dañ ko doon xaar ay at ak soubresaut yi nga xam ni am na ci processus électoral bi report bi nga xam ne juddu woon na fi mais enfin tey nous y sommes donnant l'opportunité à tous les Sénégalais nous avons fait un choix et comme nous la remarque est presque générale euh, Dans euh, la euh, communication on avait même développé un concept disant que dem voter mais pratiquement c'est ce que tous les Sénégalais ont fait ici et dans la diaspora parce qu'à l'heure où on parle à Paris actuellement il y a une queue de près de 5 kilomètres pour que bëgg dem voter ji donc consigne boobu sénégalais yi jëlee nañ ko seen bopp day dellu rek ci li nga xam ne moom lañ yàgg a wax élection du pour acteur politique donte ni am nañ ci wàll mais acteur politique su weesoo tabb candidat définir programme ñëw wax ak askanu Sénégal li ëpp solo ci euh, élection wala démocratie mooy le citoyen parce que moom moom moom baatam mooy seet kan la koy jox rôlu état nag moy nan la wara a organiser loolu ba mu am te am donc gis nañ ni Sénégalais yi Guinée, et particulièrement à la Médina Médina c'est comme j'ai l'habitude de le dire histoire politique Médina da ci histoire politique Médina da ci et c'est un quartier éminemment politique c'est l'un des quartiers les plus politiques au Sénégal donc à euh, quelque que les forces politiques yi fi Ça été yu une dinañ génn euh, def def choix def devoirs devoir citoyen te ñu def ko ci jàmm ak dal ndax loolu mooy yoon euh, coow xiiroo ŋaayoo jaru ko bañ gàcce gi ben nité fay dugg ben enveloppe ngay duggal ci urne bi donc jarul ciow euh ñuy rafetlu ni vote bi déroulé ci jàmm ak dal ak salam ndax lolu lañu yéné Sénégal. Au-delà hein, euh, la cible de notre projet politique on peut dire que au début je yi ñoo ko porté et jusqu'à présent euh, nekk na projet politique boo xamante ni ndaw ñi ñoo ko ëpp luñ ci def mais bon, li constaté c'est pratiquement trois dernières années mooy que sénégalais à ak âge bu am ils ont répondu favorablement à notre offre politique De loolu daanaka di ngeen gis mag ñi sax ñu ci ëpp ni ñii di woowee seen ni yaay Sonko ñii di donc pour wane ni c'est un projet politique bon, xam ci ndaw ni la tàmbalee mais ba fi muy mujj ñuy euh, toutes les couches sociales toutes les tranches sociales épouser le projet passif et si nous nag dans le vote nous ñi dañ ci ëpp parce que c'est un travail de longue haleine où il s'est agi de conscientiser la jeunesse et de leur dire que au lieu que ngeen une toog seen buntu wala seen sachez qu'à chaque fois qu'il y a une élection vous avez la possibilité de changer les choses de le changer, de montrer votre voix, de, faire compter votre voix. Donc, si nous voyons que Génie nous répondent, ça veut dire que le message que nous devons délivrer euh, am euh, impact et on ne doit pas s'arrêter là car si nous sommes la démocratie n'est pas juste les acteurs politiques ce qui assure la vitalité de la démocratie c'est le jeu électoral mais aussi c'est les citoyens sénégalais qui sont conscients qui fi dëkk bi toll ak le la mi participation est-ce que vous peut-être premier tour waaw euh, Nous, li ñu jàpp hein, et au niveau de la coalition Diomaye Président nous euh, ci benn schéma lu schéma au premier tour parce que gëm nañ ni comme je l'ai dit un projet politique qui a fait presque 12 ans euh, d'implémentation Nous avons développé di wax sénégalais yi di leen wan fi ñu bëgg a ak ñuy gis di nous wax ni lii mën on l'a fait ça pendant 12 ans je pense que aujourd'hui c'est l'heure où les sénégalais montrent c'est euh, une adoption au projet bobu et naturellement ça va se traduire dans les urnes maintenant nous sommes dans un état où quand même on a euh, dernièrement on a connu énormément de problèmes donc bu on li nit ñi di exprimer ci urne l'autre responsabilité c'est du côté de l'état nañu que ba euh, citoyens une voix yi ñu buñ spolier wala jël ko yóbbu ko ci beneen orientation boo xamante ni jàmm gi ñu dund ba agsi fii ba xëy mën a tey dem vote ji su ñu bëggee duggaat ci yeneen schéma ak considération politicienne dina am lu mu war a mën a jul ci réew mi te gënul ndax guléet élection nekk ci koor ci ñaari koor ndax suñu mbokk jàngu bi ñu ngi woor euh, ñi nga xam ni ñoo féete ci dénn lislaam ñu ngi woor yaakaaroon ni lu métti lay doon mais finalement sénégalais yi adapté wuñ nañ ci contexte bi rien que rek pour lan dañu bëgg dem élection bëgg gi ñu bëgg dem élection mooy lan dafa am benn page bu ñu bëgg a tourner suñu demee exprimer ko nañu leen bàyyi li ñu exprimer ñu bañ ko jël soppi ko wala bëgg ko jël confisqué suñ ko defee nag boobaa dinañ may nit ñi buntu ñu ubbi chapitre boo xamante ni gënul ci réew mi te ñaanuñu ko ci réew mi. xam nga dañuy artu ndax euh, am na tey jii lu ñu jot a dégg euh, ci déroulement de vote actuellement à Kër Massar ou quand même depuis que Kër Massar a été érigé en département on a vu que sur les cartes nit ñi da ñëw ñu leen du ngeen voté. alors qu'il était de la responsabilité de l'autorité administrative de produire des cartes et de les distribuer et de tout faire pour que citoyens citoyen le donc nous avons fait cette mission donc nous avons une responsabilité actuellement parce que élection de censure élection da nga toutes les conditions pour que le citoyen parvienne à exprimer son choix censure c'est exceptionnel mais le vote c'est la règle la censure c'est l'exception mais il finit jëm nii Kër Massar c'est censure parce que beaucoup <laughs> xoolee depuis bu créé département c'est des c' est des milliers d'électeurs Yo, yoo xamante ni qui seront impactés yooyu su tegloo ci Kër fenen, teglu le tegle feneen ak fenen. ak fenen. mais finalement est ce que cela traduit la fidélité du vote te loolu n'ak la ñu Sénégal yéenewuñ ko réew mi ndax comme j'ai dit nit ñi dafa am page bu ñu bëgg tourner il est de la responsabilité des gouvernants, des autorités de ce pays d'accompagner ce vent de changement qui souffle depuis très longtemps. Suñ ko deful ah, à ah, le risque et péril parce que dinañ chapitre bo xamanteni comme je l'ai dit ça peut nous mener vers des lendemains incertains nous xam nañ ñom yor nañ seeni sondage ñun yor nañ suñu sondage xam nañ à 18 h ou 19 h lan mo wara mëna génn compte tenu du taux de participation donc xam nañ élection commence à fonctionner donc nous leen ñaan mooy nañu am grandeur ba li nit ñi exprimer ci urne yi nañ ko bàyyi mu génnee noonu ñu bañ ci def beneen jéem am leneen lu ñu ciy jéem a def loo xam te ni mën na di jafe-jafe ci réew mi. c'est toujours actuel parce que je di comme le matin boo xoolee ni nit ñi assailliré centre de vote ba tey jii nit ñaa ngi rendi voter Moi lay slogan bon épousé nous parce que nous xëdd rek jubilé centre de vote à 6 heures eh, déjà les centres y avait du monde bi nit ñi de ba à 18 heures au moment où le dépouillement va commencer mais on verra que on va aller vers la deuxième étape de ce slogan c'est-à-dire de jubiler parce que nous, ñëpp kuy sénégalais nous avons été pendant 5 ans yi avons nga campagne électorale bi nga xam ni la coalition Diomaye président def am nga que ni ndam dong moo ñuy xaar ci tàkkusaanu tey tey ci sa vote candidat bi nga uh-huh. nekk il est confiant. waaw euh, ci rôle bi nga xam ne moom la ñu am au niveau national ànd nañoo ak moom pour mu mën a dem def votam def na ko ci anam yu dal anam yu euh, sedd. Euh, ci dëkkam boo xamante ni vraiment les populations étaient vraiment enthousiastes de voir leur candidat de voir leur, fils revenir voter parce que je précise que depuis que je suis kaso lay soog a jaga donc la dogal mais limu wax ñun lool lañu euh, pour la simple anecdote jamono yi amna euh, ci tournée campagne ñu nek ci négam am ko ko diko wax ay schéma mu ne ko non man gëm au soir dimanche 24 Inch'Allah, yalla dinañu schéma bobu la gis ci mom biñ depuis bi mu suis candidat je suis gis durant la campagne électorale ba tay bi muy voter posture la am te dans les heures qui suivent également cette posture ne va pas changer Moi posture 5 cinquième président de la République du Sénégal Inch'Allah, rabbi